asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo mbokk taalibe yi maa ngi leen di ziar leen jox seen wàccuwaay di leen ñaanal tawféex sëriñ Tuubaa te di ko ñaanal suñu bopp itam ñu mbokk taalibe yi nga xam ne sañ nañoo laabirante ak ñoom moo ngi sàkku ci mboolem taalibe yi képp koo xam ne sunu kàddu yegg na ci yéen ngeen ñaanal sunu kilifa gi nga xam ne moo fi Serigne Touba di Serigne Mountakha mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax nit koo xam ne kat lam lay jariñ ump na la ci ay tawféex ci bi ci biir zahir si itam ñun ñëpp àndoo teg ci suñu bët mu doon jëmm joo xam ne lu jiitu muy doon Serigne Touba kuy wane yoon la ci ku am gis-gis wala lu waaye gàtt xam-xam itam xam ne yoon wi mu tegu. képp koo xam ne tegu na ci royuwaay ngay doon woo xam ne nii ku jaar ci ay tànkam yegg fi fi fi sëriñ bi mu dem ba tey mu nekk fi sëriñ diggante bi mu fi nekk léegi gis na njariñ yi nga xam ne nii amal nañu ko itam aajana murit bu nekk foo toll ngay am yëg-yëg ci jëmmam ji di ñaan foo toll ci njàngum Alxuraan ci njàngum xasida ci def ay sarax ngir ñaan Cheikh Mamadou Mountakha mu yàgg fi lool te ci barke borom Touba jëmm la joo xam ne njëriñam génn nañu nun murid yi njëriñu zaahiram wesaaroona ci àdduna bi njëriñu baatinam itam njëriñu biiram wesaaroona ci àdduna bi ndax jëmmi sëñ Touba ji nekk ci moom ku mel noonu nag boo ko amee sa yitte warul doon lenn ludul mu nekk fi rek sax fi dakk kon bu nu génn mukk ci di ñaan sëñ taxa mu yàgg fi loolu te ànd ak

te fas yéene gën a saxaat ci moom te namm suñuy pas-pas itam suñu digganteeg sëriñ bi ndax ñun amuñu lu dul jëmmi sëñ Tuubaa bu ñàkkee sëñ Tuubaa dara waaye bu amee sëñ itam ñàkkatul dara kon nanu nammaat suñu pas-pas suñu digganteeg sëriñ Tuubaa beneen bi itam mooy liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéeyal sëriñ Tuubaa di jël suñu kàttan di joxe di jël suñuy alal di joxe di xalaat suñuy xalaat yu rafet di joxe buñ doon joxe lu ne itam te am ko tëñu lool ci buñ ko bëggee joxewaat ba pare ñuy mel ne luy gis ci suñu bopp itam ne ci wàllu am am yi ñu daan jël di ko joxe muy kàttan muy alal muy xel saa ne dañ koy gën a néewle bum tax ñu jàpp mukk ne suñu digganteeg sëriñ bi daa am lenn lu ci nagam ab murit warta natt ci digganteem ak sëñ Tuubaa ci koom-koomi àdduna yii ci ne bu may liggéeyal Sëñ Tuubaa saa bu at ma jotee damaa war a yokk ci yokkum zahir ci lu nit ñi gis sëñtuwaa njariñ li nga xam ne liggéeyal ko moom la ñuy am dëgg fa nga koy gisee mooy bis bu malaayka bi ñëwee ba war a jàkkaarloog yow de yegg si ñu war laa jël yoor ci bàmmeel bisu penc war a taxaw foofu lañu war a xaaree ñun suñu digganteeg Sëriñ Tuubaa te pas-pas bi dëgg sax mooy sëriñ bi war ñoo ànd ak moom ci àjjana ak sawara ndax ngor gi nga xam ne moom moom la ñu ji kon nun murid yi nañ nàmmat suñu pas-pas te jamono ji ni mu yëngoo ci wàllum koom ak bëgg daraja ak bëgg àdduna ñu génn ci yooya te tënk suñu bopp suñu diggante ak sëriñ tubaa nan nangoo ñàkk lépp ba mu des jëmmi jëm jëmmi sëriñ tubaa bu ñu nangoo ñàkk sëriñ bi mukk xol nag leen rek la te ku mel ni jëmmi sëriñ tubaa ci biir xol mooy jëmmi yàlla ak yonent bi ci biir xol am ngërëmal Sëñ Tuubaa mooy am ngërëmal yàlla am ngërëmal yonent bi ku mel noonu nag lépp loo ko rax ci xol lu bokkut ak moom day génn ba fa kon Sëñ tubaa du bokk ak lenn ci biir xol kon nañu fexe ba suñu xol yi buñ ci bëgg dara lu dul lu dul jëmmi Sëñ Tuubaa day roy Cheikh Ibra suñu kem kàttan ci doxalinam ndax roy Cheikh Ibra kat li muy jariñ mooy day tax say jëf bu yëg jëmmi suñ Tuubaa day set day neex a téye kon nanu góorgóorluwaat te nammaat suñuy pas-pas te xam ne dooni ndaw taxul ñu mën a xam suñu bopp teewu ñoo xam itam li nu wat suñu diggante ak suñ Tuubaa ñu nekk ci bu nu yàkkamti dara suñ Tuubaa xamul ku yori milliard xamul ku yori dërëm nit dina joxe milliard nit joxe dërëm suñ Tuubaa bu ñëwee xol ya rek lay xool la fa ëpp ca pas-pas ak bi yéene loolu lay jëf lanteek teg murit bi kon bu leen sukkandiku ci am ak ñàkk seen pas-pas fexe leen ba mu dëgër rek seen diggante ak Sëñ Tuubaa wasalaamualeykum wa rahmatullah maa ngi tuub kàddu yi te di jëkkalu kàddu yëg-yëg la rek lu nu lu lu nu yëg rek te bëgg sunu te xam ne sunu mbokk murit yëpp foofu la ñuy ne garab lu mu naat naat naat lu tere ñu suxat ko. kàddu yi nag mi ngi jëm ci sama mbokk taalibe yi nga xam ne sañ naa laabiranteeg ñoom jërë ngeen jëf.